maag sëñ Modou Aminta Fall juróom fukki at waaye nag ku mel ni sëñ Babacar Mbow ci moom aw meloom ci moom laa ko mas a gisee nii doomam ji def ànd ak rakam yi ak jigéenam yi ñi seex bi la defaraloon boppam ci loxoom ak man-manam ku sa baay masa fatu dem àjjana nii mu def la def kii juumul te man ragaluma ku dul yàlla bëgguma ku dul kenn laa bàyyiwul xel ku dul ku ragal yàlla di di liggéeyal yàlla xanaa sëñ Babacar Sénégal gépp ko ñàkk rawatina yoonu murit ndax lim defal yàlla ci bindeef yi yonent bu yàlla mas a yónni looloo tax mu yónni la mu jaddit bu fi mas a ñëw ginnaaw looloo tax mu mu andi la fi ba ni sëñ Tuubaa doon na bi wax ni lil Moustapha nawaytu maay jaddidu sunnatoo xaraaway ni Ahmadu lii sëñ Babacar ne. daa tàbbi ci sëriñ Tuubaa ak moo tax mu ne ci ku nekkul fa baa Babacar nekk mënoo ne ci lii mu ne muy liggéey ngir sa njaboot di liggéeyal yàlla ba talatoo sa njaboot fee na ko def ndigal la ko fa yóbbu ndigal day kum tax daanu say ngërëm bari na ndax garabu ndigal mooy meññ doomi ngërëm ku mënta am ndigal àndoo ko ami ndigal mënoo am ngërëm ndigal nag moo ne andi àdduna ku am ngërëm boo nee xuret dellu nga sëñ Babacar dellu na fa mu jógee woon ndax danoo jóge ci yàlla war faa dellu ko am ndigal ñëw ku am ngërëm dellu moom du tag fenn ndax dem na fa Seex Ibra bu yaree njabootam gi nag def leen nii ànd ak soxnaam su tedd si nga xam ne moo meññ ñii loolu ndimbalul Seex Ibra Fall la ak sëriñ Touba mi nga xam ne lu fi am mooma man du ma ragal yàgg naa koo xam yàgg naa ko sopp fa ma ko gën a soppe nag mooy ni mu def doomi sëñ mu dem di Fall jii di sama ndey ndax sama rakki baay koy denc sama baay mooy sëñ Ablaye Sylla sëñ Lamine Sylla mooy borom kërub kii ñoo bokk baay soxna Musli Fall rakki sëñ Muudu Amita ak Cheikh Fall baayub góor ak sëñ Cheikh Jëmb sama baay ko yoroon am ci Moustapha Sylla mi ànd ak sëñ am ci Abdou am ca Penda Sylla kon su ma waree ñëw Mbàkke Kajoor am lu ma téye may woo yaa aaja laaj ban na ma waxee ni daa fa bu wan di ñëw ñëw ba aéroport sunu borom ni ko fii laa la soxlaa aka le ngërëmul yàlla moo moo tax desul France ñu di ci sonn di ko jàng-jangee di ko andi fii mu amee ngërëm fi la nelawe sonnoo ci sonnaloo ci benn taalibe fee ko ndigal yóbbu woon ban ko fa defee dama yuuxu ndax ca saasalay gi ak maam Cheikh man damaa giñ ci Serigne Touba man xawma ku la gën bàyyi xawma ko ndax li ko ndigal jaral comme ko jëralul sëñ Babacar a gën sa moo gën baayam daa dem ba jeex takk ñeer doo ko wujji yàlla maa ngi ñaan ko sut kaw fan te lii mu la ba tale yàlla na ko acca kaw ànd kook sa rakk yeeg sa jigéen yii ko naw sëñ mu demit faal naw sëriñ Seex Jëmb naw naw kii fi ñëw tey kenn naw na sa baay lu masaam yàlla la ko jox te wërsëg yi ñu bari am nan ko waane jàngaluñ ci nit métier dimbaliwuñ ci néew ju doole di joxewuñ ci àddiya sa baay lu masaam yàlla la ko jox métier mi def na ko ci aw nit ñuy takk ci ay soxna am ci doom yor leen ci nam def ndiim doyal na waaye ban ko yebalee Mbàkke Kajoor mu mel ni da koo neex mu dem sanc ko toj àll ba def fa loo xam ne ku fa demal tëdu moom doo ko man loolu tax ma am ci moom cofeel yàgg moom nag xam na ni am na fu ma ko teg bu ma masaa gis damay mel ni lu may fóon ma ma ma mel ni nu ma ko bëgg a wan na ndax xam ne deretam ja liggéeyal Cheikh Ibra Fall ak bëgg ko dem na ba mu rax dereti Cheikh Ibra Fall ndax wala du xal bi yurusul xaal wala du sul bi yurusul maal doomi xol moo gën a rëy doomi dàmm ju ndeyam baaxul sa baay sëtub Cheikh la Fall la ci xel ak xol ak deret ak jëf maa naaw sa baay te man sëñ mu fàllum sëñ mu deminte mii laa defum nawle ak sëñ mu sambar ba di jógee daal ñëw ci sëñ mu deminte fekk na ma toog maak saa bàyyi 18 la Cheikh Fall Baye góor gane àdduna 18 la sëñ mu deminte Fall gane àdduna 18 la Cheikh Anta Diop gane àdduna 18 la sëñ Ablaye Sylla mi ma jur gane àdduna fu sëñ mu deminte Fall masaa ma ngërëmul Cheikh Fall ak doomi sëñ Bamba mook sama bàyyi ko kon su ma ñëwee di seede sa waajur wi fekk fi mbooloo mu tedd mi nga xam ni danoo mel ni ay saaba ñépp Baye Fall lañu te Baye Fall yombul de ñu bari dañ naa man Baye Fall laa waaye baa xam nga ni julit bu doxul mënta doon ab taalibe taalibe bu doxul mënta doonu murit murit bu doxul mënta doon Baye Fall Baye Fall ñu ñoo ne ca kaw sëñ ma dikk baja kon maa ngi leen koy jaale di ñaan suñu borom ngeen mujj ko fi lu yàgg a yàgg a yàgg yàlla defal na ko ngërëm yàlla nañ fi nekk nuyut baam am ci dara ji maam Seex maa ngi lay ñaanal nga wér maa ngi ñaan sunu borom nga mucc maa ngi ñaan sunu borom nga sut ko aw fan te ànd koog sa rakk yi ak sa taalibe yëpp ci dara ji maam Seex barke sëñ Modou Falilou Fall. lil Moustapha kulliyati kulla sana mathan salatan wa hababi hazana ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggaat lool ànd ak wér di ko ñaanal bu baax mbenda jaxu nay ba sala penda mi des si ar ardo nga maafaan waaye pël baa nga mboobeen Modou Mbenda Fall jàmbaari carrière waaye Modou Mbenda Fall say noonu du ñu ree di ko naanal Serigne Amdi Fall Modou Mbenda mi ci biir naaru maam Khady di xalifa général de Baye Fall di xalifa ci baayam euh, di xalifa ci maamam mbokk yi topp ci biir réew mi ak bisim réew tey jii euh, fii ci Baye Fall gi euh, Serigne Cheikhouna Mbow mi nga xamante ni mooy doonay Serigne Babacar Mbow mooy xalifab Serigne Babacar Mbow bu ndéemum maam Massa Thioro Gueye bu Mbacke Kajoor moo ñëw di jaayanteeg. Eh, ki nga xamante ni mooy eh, Cheikh Amdi Fall Modou Mbenda mi fi nekkal eh, maam Cheikh Ibrahima Fall mbooloo mi nga xamante ni sunu borom dogal na toppoon na Serigne Babacar mbaw jaayante ak moom bi fi Serigne Babacar bàyyi ko ci ay bis yi ñu génn mbooloo mépp dañoo jaayante ci kanamu Serigne na ni aslamtu nafsi ngir njébbal kóllëre la waaye tey jii Serigne na ñëw fa yéenee jaayante waat moom dañoo jaayante ci moom mu fas yéenee ñëw jaayante waat ci ki nga xamante ni mooy Serigne Amdi Fall Modou Mbenda. Euh, xalifa général de Baye Fall borom Maafaan borom Mboobeen borom Nja Kër ma si Cheikh Amdi Modou Mbenda mi nga xamante ni mooy mooy naar maam Khady Niang euh, ku ne xam ne ni euh, sëñ Modou Fall Mbenda mi nga xamante ni moo ko meññ di kenn ci Soxna Fall Mbenda ndax maam Soxna Fall keroog bi mu ñëwee ci maam Cheikh Rahim Fall ni ko Modou Fall Mbenda day doomi bàyyi yëpp jàngi nañ te bu jàngiwul dina gàlli maam Cheikh Rahim Fall ni ko ah maam Soxna Fall noppil Modou Fall noppee ci moom adduna yëpp dina xam ni noppi naa ci sëñ Modou Fall Mbenda keroog bi sëñ Amdi Fall Modou Mbenda toogee la la wax waxu maam Khady Niang jooju nga xamante ni sunu borom dogal na firi ko waaye nag di siyaare bu baax njabootu Serigne Talla euh, Modou Mbenda njabootu Serigne Cheikh Modou Mbenda mi nga xamante ni moo njëkk a wutu sëñ Modou Fall Mbenda 1955 ba 86 jox rakkam ja Serigne Talla Modou Mbenda mu yokku liggéeyu sëñ Modou Fall Mbenda ba 96 mu jox naar moom Khady Niang muy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda moom laay wax naan. mbenda jaxu nay ba sala penda mi da singaraaf ardonga mafan waaye pël baa nga mbooben mudu mbenda faal jàmbaari carrière waaye mudu mbenda faal sey noon du ñu ree waaye sëriñ Cheikhouna mi nga xamante ni mooy xalifab euh, sëriñ Babacar Mbow ànd ci ay rakkam ak mbooleem njabootu sëriñ Babacar Mbow yi gu góor gi ak gu jigéen gi ak sunu yaay ji sa kër ga muy ay sa ñi ngi ñaan yal na yàlla defal ko tawfeex ci barke pàkk bii nu taxaw muy sëñ Modou Fall Mbenda waaye ku ne xam na ni sëriñ Babacar Mbow euh, tey jii fa mu tëdd euh, bég na ndax bàyyi fi doom yu baax yu lay ñaanal waaye Ardo bu fi jugee ay doom sañ nañoo jàpp jur gi di maye Cheikhouna mi nga xamante ni moo wuutu euh, sëriñ Babacar mbaw moo yor xilaafa gi wuuf rakkam yu baax yi mu am wuuf njaboot gi leen sàmmal euh, Serigne Babacar Mbow yàlla na ko yàlla fesal euh, fesum kanam euh, te mu sax te seen kanam teñu ñu sax te ñuy liggéeyal Serigne Babacar Mbow Boundé mam euh, Mame sa Thioro Gueye euh, projet bii nga xamante ni 2015 euh, sunu jàmbaar ja Cheikh suri Makhtar ma fee Selanwaar moo seefeen sunu gaar jël liggéey bi teg ko ci loxol Serigne Cheikh Jëmbu Fall naaru maam Jëmbu Diop Serigne Cheikh Jëmbu jël liggéey bi teg ko ci loxol Serigne Babacar Mbow Boundé moom mam Maysa sa Gueye Serigne Babacar Mbow nag bàyyi koo fi bi jamono yii ay bis yi nu génn waaye Serigne Cheikhouna mi nga xamante ni mooy xalifaam toog. wuuf rakkam yëpp rek di liggéeyal euh, Serigne Babacar Mbow euh, ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi koy ñaanal gudd fan te yàgg fi te liggéey te ñu ànd ko ak moom ak mbooleem képp koo xamante ni jaayante woon nga ba Babacar Mbow tey jii magi taalibe yi wóllare yi xarit yi am di jàmm mi soppa yi ñëpp ñëw jaayanteeg euh, Serigne Cheikhouna mi nga xamante ni mooy xalifab Serigne Babacar Mbow yal na yàlla defal ko taw tawféex di siyaare njabootam gépp rek di siyaare njabootam gépp rek buñ ci tuddee Serigne Cheikhouna Euh, Serigne Maam Samba Serigne Fallou euh, soxna Maam Cheikh euh, Jamila soxna Ngóone ak mboolem njaboot gépp rek ak magi taalibe ñoo fas yéene tey ànd ak ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikhouna mi nga xamante ni mooy xalifa Serigne Babacar Mbow bu ndéemum Maam Massi Thioro Gueye ndax Serigne Babacar Mbow daa gàddaye woon ndéem 2015 ñëw Mbacke Kajoor sunu borom dogal Mbacke Kajoor ab lig cërub Serigne Babacar Mbow la ma ne woon góoru muhajirina yaaki lan saar waaye gàddaay gësin gàddaay ka baaba naam Mbow Serigne Babacar Mbow gàddaayee ndéem ñëw Mbàkke Kajoor ku yëkkul yaa wàññi waaye kone ne xam ne ni Serigne Babacar Mbow yokku na liggéey Maam Serigne Fall ci biir réew mi ak bitim réew ndax Maam Serigne Fall moo ni woon maay atte ñu weex ñi waaye maay atte ñuul ñi waaye loolu Serigne Babacar Mbow moo ko firi kon ñi ngi siyaare bu baax eh, Serigne Amdi Fall eh, mi nga xamante ni naaru maam Khady Niang Serigne Cheikhouna tey fas yéene sukk ay bëti woomam jël ay loxoom teg ko ci loxol sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda mi fi nekkal maam Cheikh Raye Fall mbooleem njabootug maam Cheikh Raye Fall gépp rek nekk ci kanamam waaye ku ne xam na ni ñi ngi jëm ndog yi fi la Serigne Cheikhouna ñëw jaayante liggéey bi nga xamante ni mission la sunu borom moo ko cëralee Serigne Babacar Mbow biir réew mi ak bitim réew Serigne Babacar Mbow liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal maam Cheikh Raye Fall Serigne am na ngërëmu yàlla am na ngërëm sëñ Touba am na nga réew maam Cheikh Rahim Fall sëriñ Babacar Mbow ñi mu àndaloon kenn jëppiwu ko sëriñ Babacar Mbow làq na ngërëmuk Cheikh Modou Aminta Fall nangu ndigal sëriñ Babacar mbaw làq na ngërëmu sëriñ Cheikh Jëmb Fall waaye sëriñ Babacar Mbow làq na ngërëmu sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda ñi fi njëkk a toog xalifa ak maam Cheikh Rahim Fall ci ay sëtam muy ñetti sët yi Mouhamadou Aminta Fall sëriñ Cheikh Jëmb am di faal Fall Modou Mbenda naaru maam Khady Niang sëriñ Babacar Mbow laq na ngërëmam tey jii seriñ bi joxe ndigal ñu denc ko Mbàkke Kajoor waaye tey jii mu ñëw di jaayanteeg ki nga xamante ni mooy naaru moom Khady Niang di xalifa ci baayam di xalifa ci maamam muy borom maafaan borom mboobeen sëriñ di Fall mu du benn xalifa général de Baye Fall sëñ Bay dañuy dem rek jël ay réaction ci siyaar bi nga xamante ni euh, Serigne euh, Serigne Cheikhouna mi nga xamante ni mooy xalifa Serigne Babacar Mbow tey war naa ñëw fii ya yesalaat pas-pasam yesalaat ak njébbalam naka bàyyam bu baax ba jaayante woon gis am di Fall Modou Mbenda waaye di siyaare mbooleem ñi nekk Serigne naa di ko jàppale euh, ci liggéey bi Baye Fall ka ñu ngi koy siyaare bu baax euh, ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla na borom yokku ay xéwalam sànq rek sëñ Moussa Fall mu sëñ Abdou Sakkour mi ngi def ay témoignage sëñ Babacar Mbow démb ca Genève daayira Jësu Murit ba fa ne ànd ak Cheikh Moustapha don delloo njukkal sëriñ Babacar Mbow démb ci Medina maam Samba yendu fa ak mboolem njabootu Cheikh Rafal maam Cheikh Rafal ga fa teew di delloo njukkal euh, sëriñ Babacar Mbow bu ndéemum euh, maam Maïssa Thioro Gueye kon sëriñ Bay dañuy dem euh, ci biir jël réaction yi ak siyaar bi nga xamante ni dukkee na fi ci ki nga xamante ni mooy xalifa général de Baye Fall muy sëriñ de Fall Modou Mbenda xalifa général de Baye Fall naaru maam Khady Niang yàlla na fi yàgg lu ànd ak wér ngeen jëf sëriñ bi neena na na ko njébbal gi njëbbal gi na xolam sedd na ci lool bi nee na njëbbal gii sëriñ seexu naa def ci kanamu goy juróom wi nee na xolam sedd na ci guy sëñ am day wax nag nee na sëñ seexu naa li mu def nangul na ko lépp waaw nangul na ko lépp jërëjëf raayal sa kanam raayal sa kanam nee na sëñ naa lii mu def waaw dëbbalam gii waaw déglu leen ko ko ndax bég na si ndax wajuram ma sëriñ Babacar nee na daa seral ab xolam lool guy kay daa seral waaw waaw waaw ah, lii addiye la waaw ñoo ko indi njëbbal gi waaw waaw Fall waaw waaw li lépp ay téere la yoo xam ne waaw moo ko bind sëriñ Babacar lii ay téere la yoo xam ne yëpp moo ko bind si wàllu nasaraan ngir feeñal si Cheikh Ibra Fall akub liggéeyam feeñal si euh, bëgg gi nu war a bëgg yàlla suñu borom agub yonentam ak liggéeyam sëñ Tuubaa lu yéeme la Fall mi ngi nii waaw <laughs> joxal sëñ Mor ah, wan ko waaw lii mooy li ñuy liggéey si mooy centre yi di liggéey waaw waaw lii nga gis ni moom ah, yii mu indi mooy sëriñ kar ñi mu tàggatoon maa ngi jégalu de sàkku ci sa jëmm jëmm Cheikh mu sëriñ Tuubaa moom moom sëriñ Ngunda mu maam Cheikh Ibra moo doon seere si sëriñ bi moo doon seere si sëriñ bi di kalaamewaat njaboot gii di seereel ndigal la ko sëriñ bi joxoon diggam ak sëriñ Babacar di seere sëriñ bi waaw ah, moom moom la sëñ Ngunda doon jottali léegi lii lépp nag faal mooy li nga xam ne sëñ Babacar ak njabootam doon nañ si tàggat ñi nga xam ne ñoom la leen eh, Cheikh Fall loon si gox yi nga xam ne yëpp gox yi ñu mas a tàbbi la muy muy muy loo xam ne lu amal amal njariñ askan wi la ah, moom la ñu indi nii lenn lu si nekk ñu indi ko doon ko woon sëriñ bi muy liggéey boo xamante ni li ñuy sàkk mooy sëriñ bi ñaanal leen ba mu doon loo xam ne lu wéy lay doon lu sax lay doon waaw ndax moom sëñ Babacar fa mu newoon moom li ma leen wax ni dara jógu fi waaw dara jógu fi ndax lépp rek eh, moom tàggat na doomam njabootam gii toqe na leen si tàggat na leen si ba ñoom ñëpp eh, mokk nañ si rumbax waaw te am nañ yéene ak pas fa mu tegoon tànkam ñoom ñu teg fa seenub tànk waaw kon ndigal la sëriñ bi joxe woon moom la ñuy feddali rek sëñ Cheikhouna sëriñ bi dafa waxoon ni mi ngi digal képp koo xam ne kii Cheikh Ibra moo la boole woon ak Serigne Babacar mbaw mu ne nga tënk nga nga tënk sa jëf ak sa lépp si sëriñ Serigne naa mi nga xam ne moom la fi bàyyi di ab taawam ànd ak moom liggéey bi nee na mi ngi digle liggéey bi nga xam ne moom la tegoon si loxol Serigne Babacar mu doon ko taxawu sa Mbàkke Kajoor ak fu mu mën a doon liggéey boobu mi ngi wax ni delloo na ko Serigne naa mii mu yor liggéey bi fas yéene la si sëriñ bi bëgg mu am ngi yeesal ndigal li mu joxoon sëriñ Babacar si liggéey bi nga xam ne mi ngi ko doon taxaw fépp rawatina sa Mbàkke Kajoor nga xam ne kenn ku ne gis na la liggéey ba lam ko jural nee na mi ngi koy yeesal si sëriñ naa mii nee na liggéey ba lépp tegaat na ko si sa loxo nee na lépp lu lu sa aju liggéey ndigal li mu joxoon sëñ Babacar lépp tegawaat na sa loxo nee na ko taxaw mi ngi la si soññi waaye di si soññ njaboot gi nga àndal yëpp muy taalibe di si sàññi bokk yi di si soññ eh, wëllëri yi ak ñi ko sëñ Babacar daa àndal ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen siy soññ ndax ndigalul sëriñ Touba la ndigal loole bërëb boobee sëriñ Touba moo ko joxoon ndigal ki fi nekkal Cheikh Rafal mu liggéey ko sëriñ Babacar doy ko si mu jël liggéey ba teg ko si loxoom gis ngeen lam fa taxaw na mu toll ak yéene mébét yi mu amoon dara ump leen si ndax projet yëpp xamoon ngeen lépp xamoon ngeen fi mu jëmoon xamoon ngeen vision bi kon nag mi ngi noonu si seen kanam nee na mi ngi leen di ñaanal suñ borom kattanal leen ba nu ko sëñ Babacar yéenee woon ngeen mane ko nu ko raw te am xolub jëfee ko noonu te ànd koog murid yëpp ñu ngi soññ murid yi si réew mi ak yeneen bitim réew fu nu mën a nekk te am lu nu seqoon ak sëñ Babacar xam ne ndigal loolu mi ngi koy yeesal si sëriñ naa bëgg ñëpp ànd ak moom nu àggale liggéey bee balaa yàgg liggéey ba àgg nu néew jël ko jébbal ko borom kon sëriñ baa ngi leen sant di leen gërëm Ah, ah, yoon waa ngi noonu rek waaw ah, nuy jottali tamit yóbbante boo xam ne mi ngi jóge si soxna ay Aïcha mi nga xam ne mooy moo nekkoon ak sëñ Babacar di doonoon ab taalibeem jàppewu ko woon borom kër da jàppewoon ab sëriñam nun xam nañ si dara da koo wegoon da koo da tegoon sa kaw da koo yaakaaroon da ko doon liggéeyal te yàlla rek tax moo meññ njaboot gii loolaa tax liggéey boobaa tax ñu am tey jii ñoom lii nu am kon soxna si mi ngi yóbbante moom it ab nuyoo di feddali nag yaakaaram waaw di feddali ak njëbbalam ak pëseefam fas yéene fa mu ne woon si wetu sëriñ Babacar foofee rek la fas yéene féete lépp luy bëgguk sëriñ bi lépp lu jëm si liggéeyal la loolee rek si la fas yéene sax ànd ko njaboot gi ak taalibe yëpp ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko ni kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag nu delluwaat si liggéey bi waaw waajaliwaat ndogu yi waaw dellu siwaat nag si liggéey ndogo yi te bàyyi xel fële nag pexe yu nu am nag nan ko jooyal waaw diir ba sëñ Babacar jàppoon mu àgg nan ko raccourcir mu àgg waaw nu xam ne ab liggéeyam sëriñ bi nangul nanu ko jërëjëf Fall wasalaamaaleykum rahmatulah di seexu naa mbaw sëriñ ba mu sëñ Babacar mbaw nee na mi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi li wax jërëjëf sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina santaat suñu sang bu tedd bi Cheikh Ababacar mbaw talib Baye Fall Mour Sadix ñu ngi sama dolli ay ngëneel dolli ko ay leer sama borom dolli ko ay ngërëm sama borom defal ko ay tawféex bañ bokk ci tawféex gi sëñ Cheikhou tey da doon xaar ba jox boppam sëriñ bi soog di wax ak mbokki di dénkaat boppam mu ne ngir jëmi Cheikh Ababacar mi fi bàyyi ko ne bala moo tàmbali day soxna maam day tan soxna ay sa waajur mu tedd woowu wér ci taxawaay bi mu taxaw sëñ Babacar Mbow nekkoon fi ak mbokki taalibe yëpp nekkoon fa mbokki taalibe yëpp nee na mbokki taalibe yëpp yor nañu yor nañu jikko soxna Aysa nee cant gi moom lay tàmbalee de di rogalaat di rogalaat ci taalibe yëpp di rogalaat ci taalibe yëpp cant gi Cheikh Ababacar Mbow ne léppam mat na nee na nee na ñun liñ dal bàgg si ci moom nee na màggaay suñu borom la ak yërmande suñu borom nee nañ ko jàppee noonu de. neen amul leneen neen amul leneen yërmande ak suñu màggaayu borom nee suñu borom mooy wane màggaayam ci jëm suñu Babacar Mbow. dañ koo joxoon ndigal mu nekk ci ngërëm li ak si mu yóbbaale ko nee na Baye Fall dem sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamina sëñ Fallou Mbow nee na nañu wax alhamdulilahi rabbil alamina nee sëñ bi. nee na wàcc na wàccoon ak ñun nee na sant sigi bu ñu am benn tiis ci xew-xew bi ñu dal nee na ko doy sant Serigne Touba nee sëñ Babacar nee yàlla bi defee ñu xam ko yemuñ ci xam gi rek nee dañ koo xam gëm ko bëgg ko ànd ak moom liggéeyal Serigne Touba nag. nee dara loolu féetee ko kaw de sëñ Fallou Mbaw nee na nañu wax alhamdulilahi rabbil alamina nee na ngeen santaat yàlla nee na ngeen gëmaat sëñ Bamba nee na ngeen dool suñu yaakaar ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina nee tey jii lañ gën a mën a liggéey sëñ Babacar Mbaw nee lu ñu ko liggéey doon démb nee tey lu ñu ko mën a jekkoo liggéeyal de ne dem bi fi nekk ak ñun ne yërmande dafa yaatu woon lool de ba nëbbuñu boppam ne tey jii mu ñu bàyyi ak taawam bu tedd bi sëñ Cheikhouna Mbaw mii te li nga mën a jaayante fas suñu xol li mu bëgg lépp ànd ak moom di liggéey sëñ bi moom yar nañu xamal nañu liggéey la nañu tarbiye nañu ba xamuñu leen lul maam Cheikh Fall Babu Mouridina nee sëñ bu tedd bii la tàmbalee de sëñ Cheikhouna Mbaw di taawam di ab taalibeem nee sa ñëw sëñ bi de dundam gi yëpp dundam gi yëpp sëñ Babacar nga toppoon nee fu ma sa ne ndigalu ku baax fa la nekkoon de nee na moom te duñ jaaxle tey de ne xam ne sëñ bi jógu fi ne loolu nag moom dañu ko ci biir cant gi kon taalibe yi nañ bokk ñaan sëñ Babacar Mbow fas ci ay leeram nee na fas ci leeru sëñ Babacar Mbow luñ bëgg nee na leeru sëñ Babacar mën nañu koo jox bés ni ki tey bi ñu soxnaa jàllale ak njëbbalam sëñ bi moo nu mel ne maam Cheikh ne bu la la liggéeyam tàmbali ñu sëriñ bi nag amul tànk ginnaaw tànk kanam la am de ne loolu mooy liggéey bi kon nag nee na mi ngi war mi ngi mi ngi yàcc foofu ne ñu bëri dañoo war a fi ñu jëm sori Serigne Cheikhouna Mbaw ne dafa ñeewantal ma muridi de ñu war a dellu Dakar ak feneen ne bu teelu yàgg nee na gannaaw moom doon da jébal nañ ko suñu bopp àdduna ak àllaaxira bu ne woon ñëpp nañ dem Mbàkke Kajoor toog nee na ñëpp ne noonu la ñuy def fekkee kàddu ñu wax moom dëgg la ne noonu la ñuy def nee ci yërmande ak mbaaxam. ne koy dellu fa nga nekk déglu ndigal déglu ndigal moom nee na kàddu gi yëpp nee na sëñ maam Cheikhouna moom yi moo ko yore nee na góor yàlla yi sëñ mënu mel ne sànq bi sëñ bees moom dafa wax ne ñaari kàddu sëñ Cheikhouna da ko njëkk ne sa njëbal sa njëbal ñëw sa naa ko ci xol bu seddu guy ab taalibe nag mën tam lu gën a lool de sëñ Modou mel na mi Cheikh Fall moo xool dellu na ko. képp koo liggéey sëñ Babacar. jox naa liggéey nga yeesu sëñ Seexuna Mbaw mii. waxoon na ko Mbàkke Kajoor. fàttaliwaat na ko tey. lim ci tegaat. mu ne. liggéey bi mu dénkoon sëñ Babacar mi muy Mbàkke Kajoor. nee tegal na ko ci loxo sànq bu tedd bii di si joxu naa mbaw ndax mooy bi sëñ Babacar Mbow kon kàddu yooyu ku dem nañ ko yóbbaale nee ñaari kàddu rek moo fi ne muy kàddu ndigal nangul na ko njëbbalam soñ taalibe mu doon suñu buntu ci moom ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baal Mouridina boole ci ndigal li ko joxoon yéen ko yaa ko ci loxo sëñ Cheikhouna ku jëfati bëgg Mbàkke Kajoor sëñ Seexuna mooy sa bunt ne liggéey bi li muy rëy rëy rëy sëñ ci loxo na ko tegaat kuy dem na nga yóbbaale lool de sëñ Babacar nee na déglu ndigal ak jëfe ndigal la fi nekkee woon ne li nekkoon ci daal dunaa weesul maam yow ñaari baat yooyu képp ku ne man sëñ Babacar liggéeyal sëriñ Touba daf laa war te nga xam sëriñ bi ndigal nag moo teg ci kawam nga dugg ci ndigal loolu ba am ci ngërëm nee te loolu lañ jëlee ci sëriñ bi nee na kat sëriñ bi daga lépp ci loxol sëriñ Seexuna Mbaw di sëriñ Babacar Mbaw kon takalax saa yëpp ñun ñu ñëpp jël tiis bi nag def ko mu suñu bànneex di sant sëriñ bi bu baax a baax di sant tey siggi kaddu yooyu nag sëriñ Fallou rek sëriñ Cheikhouna Mbow sëriñ Cheikhouna Mbow waxoon ko kaddu yooyu balaa mbooloo mi dem danañ ko jottali danañ ko jottali ku nekk yóbbaale ko nee na kaddu ndigal moo ñu sëriñ bi kaddu ndigal la ñuy yóbbaale nee na murid bi dem na nga yóbbaale sa xol fas yéene tey maam di bëgg sëriñ Babacar Mbow tey fas yéene koo tàmbalee liggéeyal tey ba am ay ngërëmi ngërëmam neen loolu rek lañ sàkku de sëñ Fallou Mbow nee na mi ngi sant mbir yëpp seen teewaay ci turu sëñ Cheikhouna waaw nee day jottali waaye sëñ sëñ Bay wax moom nee sëñ bi doo ba léegi kenn toogul de kenn dalluwul nee ñëpp ñu ngi woon ci waar wi gis na taxawaay bu baax a baax ku ci ne la nga nekkoon sëñ baa ngay sëñ lay gis nag sëñ sëñ Babacar nag moom nee na mi ngi ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina nee daaw doon taw feex suñu xol nag barke maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la ñu war a def nee na mbiram ku ne gis na kat ni mu demee nee na loolu nag kum doyul dara doo doy nee ñu ngi santaat sëriñ bi sëñ Babacar àndaloon liggéey liggéey bi. ne seen gën tàmbalee sëñ tubaa yim sëñ tubaa ne jël ci jël ci Baye Gabou Gueye Baye Fallou Gassama Baye Madické Badiane Baye Mame Cheikh Lo Baye Souleymane Samb ñëpp rek waaye ne daa xat nag ba ba ba mu ñëw lim ba yow mu ñëw lim ñëpp nee na Serigne Djili Fall Sëñ Abdou Rahim nee na maam duñ ko tudd ndax dafa doon jëwriñ kër gi doon suñu sëriñ ak sëñ maam Cheikh Fall nee na kat ñoom mu dee lañ laxasaayu ànd ñu ci liggéey Mbàkke Kajoor bi kon ñoom nee na ñoom sëñ Fall moo nee na bu waxee sëñ Cheikhouna wax ñoom lañ waxal de kon mi ngi noonu sëñ Cheikhouna Mbow nee na taxaw bi na lool de nee tey wax dëgg wax dëgg fa yàlla ne tey ji bésu ba am bésu tey. ne sëñ bi nangul nañu ñu tàmbalaat liggéey bi mun nañu yeggali liggéey waxul tàmbalaat li àgg liggéey bi la wax nee na bés la boo xam ne nee na kawe lool de nee sant murid yëpp nee leeral mi benn bi rek moo fi ne ak taal bi rek fi ne dañ daan dundee nee noonu nee sëñ bi ci ak taal bi rek nee mu seen dox ci leneen ne li ñu doon dox ba mu doon seen jëriñ ci liggéey bi ne loolu noonu loolu rek mooy wéy de ne dara mosu fee dañ de sëriñ bi ne tey nag jox nañ ko suñ bopp ba nga ko joxee suñ bopp dañ dénkaane yéen ñëpp si mi ne ñu ñëpp ñoo ci bokk yem mbokki taalibe lañu mbokki taalibe fu ñu ànd nag faaw moom ñu jiitu am ñu topp am kon bu ko defee nañ xàmmee cay ràññee nag liggéey bi nu mën demee ñu mën a xam ñooy jiitu ak ña ca topp ñun ñëpp nag ñu booloo jublu ci liggéey bee ca Mbàkke Kajoor ndax kat sas la woo xam ne ne loolu la yor sëñ bi de moom la yore sëriñ bi sëñ bi ne nañ jublu bu baax murti ku ne boo dale fa nga ne ni ko sëñ Fallou Mbow waxee jublu ci waajal liggéey bi nag joxe suñu lépp ngir mën koo jekku buñ ci bàyyi mukk jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf. 75 ans maam Serigne Fall dund moom la dund 75 ans yi Serigne moom la dund maam Serigne Fall moo ñëwaat def lu ko neex ci Serigne Babacar Serigne Amdi Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall mbenda jox nañ ba sala penda mi da singaraaf ardongo maa Fall waaye pël baa nga mboobeen Moodu Mbenda Fall njàmbaari carrière waaye Moodu Mbenda Fall say noonu duñu ree moo jàkkaarloog sëñ naa ni ko teg naa la yan bi na mbooloo mépp ànd seen ginnaaw sëñ Cheikhouna yàlla nga gudd fan day yàgg fi te liggéey liggéey bi ngay liggéey sa baay bu baax bi ci biir réew mi ak bitim réew yàlla nga àggal lépp baay bu baax ak maam ju baax képp koo gis mu ko xeeb doo ko amul waaye la maam mu Fall woo sëñ Mourou Moussa Fall 1930 dañ ko Moussa Fall maa ngi dem dénk naa la Ablaye dénk naa la Momar Talla waaye Moustapha Fall da ngay namm fu sori bëgg fa lu bari diggante doo war nangu si jàmm di fa gis góor ni ko Moustapha Fall loo gis baax na Moustapha Fall loo dégg baax na ni ko doxal tabul gees koo dëgg di sànq maam Mor Talla ni bàyyil jaloore yi gars yu baax yii nga ak di turoo sëñ Babacar doomam yëpp dañoo ay jaloore ndax da ngeen takk seen laxasaay ànd ak moom ci liggéey sëñ Tuubaa bi nee na jaloore joo deful ak ñam woowu musulayam jaloore gi def ngeen musal sa ginaar su bopp soo mus moo gën a wóor nee na nag yow musu tanaa noo dugg ko suuf sëñ Mor Talla nee na ñooñaa di ñii mooy yéen kookaa di kii foofaa di fi dëgg waaye murit bu seenoti leneen feneen ku ci ku yem addiyee rawaleel jox sëñ Cheikh naag asaka fa mën àgg sori na waaye addiye fa mën àgg asaka mënu fa àgg nee Cheikh Moustapha Fall nee ma cas sa ñaari loxo soxal te gaaw ma jàmm di gàñet nee ma sutti samay jàngoro ngi saafaraal muritu liggéey bu ñàkkatul jeexeetu xanaa war a tiila bu leen na Cheikh Mandoumbe ak Cheikh Ibra Fall seen maam naw naa seen doxin bu xel demee jël naa diggéen daw tiite nee na ñooñ kaf fi ñoom dañoo jógoon bëgg yàlla waaye muy sëriñ waaye pasé bi seen nelaw ya mooy seen taw fii xel nag dañoo amal sëriñ sëñ Babacar mu dem ba doom ba da lay ndigal kon lay jeex à Dieu. Nous prions sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi Nous remercions du fond du cœur Mam Cheikh ibrahima Fall, l'éternel serviteur de Cheikh Ahmadou Bamba. Et de notre cœur, nous prions pour que, à jamais et pour toujours, que la bénédiction, que Dieu accorde la bénédiction et le salut à Cheikh Ababa Karmbou, Baïfal Talibé Mourid Sadikh. celui qui nous réunit aujourd'hui autour de la spiritualité Baïfal. Cheikh Ababakar Mbaw nous a accompagnés sa vie durant à adorer Dieu, simplement. Ce que je disais hier, Seigneur Babacar avait un seul objectif dans sa vie, c'est être agréable à Dieu, adorer Dieu. Quand il marchait, quand il buvait, quand il parlait, quand il travaillait, tout ce qu'il faisait, c'était un acte d'adoration de Dieu. Parce qu'adorer Dieu, comme il a toujours dit, et c'est pourquoi l'être humain a été descendu sur terre. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est dans le Coran. Et cette sourate du Coran peut résumer la vie et l'œuvre de Seigneur Babacar Mbou. Et cela, en plaçant toute sa confiance à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul et en suivant un seul et unique exemple, Mam Cheikh Ibrahim Fall Babul Mouridina. Seigneur Baba, il n'avait pas deux exemples dans la vie. Il avait donné toute sa confiance à Mam Cheikh Ibrahim Fall. Dans toutes les choses, il a vraiment reflété la lumière de Lamp Babul Mouridina par tout ce qu'il a donné dans le chemin de l'amour. Donc aujourd'hui, Seigne Babacar s'en est allé à Dieu, parce que tout ce qu'il disait, c'était œuvrer pour Dieu. jë a plus besoin de lui que de nous. Dieu l'a rapproché de lui et il nous a laissé sa lumière. Nous tous, nous sommes des lumières de Cheikh Ababakar Mbow. Et il n'arrêtait pas de dire ça, nuit et jour, que vous êtes Serinbi. Donc c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre qui est Cheikh Ababakar Mbow, par ce qu'il nous disait. par l'amour qu'il témoignait à chacun de nous, par la lumière qu'il partageait, par les enseignements spirituels qu'il nous donnait en silence, qu'il nous donnait par des mots, par des actes, par de, toutes les, de toutes les façons possibles. Seigneur Babacar nous a aimés et nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous lui avons rendu hommage et nous le ferons tout les reste de notre vie. nous allons œuvrer par sa lumière et par sa baraka. Parce que les hommes, les hommes de Dieu se cachent, mais ils, ne, ils, ils sont très proches de nous. Parce que c'est une affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire d'être humain ordinaire. Les cheikhs sont tellement imprégnés par la lumière divine qu'en quittant ce monde, ils deviennent plus proches de nous, dans notre cœur. Donc, ce que je disais tout à, tout à l'heure en Wolof, je pas repris mot par mot. je parle par inspiration comme ça. Mais je disais que Seigne Babacar, c'est aujourd'hui que nous pouvons commencer à, à, cheminer avec lui réellement, en silence et dans la plus grande profondeur. C'est aujourd'hui que nous pouvons commencer à l'aimer pour l'amour qu'il nous a donné, pour l'amour de Dieu. C'est aujourd'hui que nous pouvons commencer à œuvrer à ses côtés pour Serine Touba. Parce que pour lui, adorer Dieu, c'est travailler pour Serigne Touba et travailler pour Serigne Touba pour adorer Dieu comme nous l'a dit Cheikh Mountakha longue vie à lui il y a pas un mois il nous a rappelé les principes fondateurs de la voie Baye Fall Cheikh Mountakha donc Sëñ Babacar aujourd'hui nous devons tous être conscients de cette vérité la que Sëñ Babacar nous a tous préparés à ce jour nous a tous parlé en silence et il continuera à le faire éternellement. Il restera à jamais et pour toujours dans ce que nous sommes, dans, ce que, dans notre potentiel de ce que nous pouvons devenir dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, elle est tellement immense, mais il n'y que l'amour qui est le moteur de la voie de Dieu. Seigneur Babacar, tout son enseignement peut se résumer en un seul mot, amour. Amour pour Dieu, pour la face de Dieu. et aimer son prochain pour la face de Dieu. Aimer tout, tout ce qui existe dans l'univers pour la face de Dieu. Aimer les arbres, les animaux, la terre, l'eau, tous les éléments, qui, toutes les composantes de la planète. Seigneur Babacar avait une relation particulière. Et c'était ça mission, c'est d'éveiller, mm, d'ouvrir nos cœurs à ces réalités-là, très profondes. Et c'est ça qu'il a partagé avec nous avec toutes ses forces, tout son amour, tout son cœur, depuis que chacun de nous l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, ce que je disais, nous nous faisons que rendre grâce à Dieu. Parce que tout ça, c'est la compense, c'est la compassion divine. Tout ça, c'est que de l'amour. Dieu, c'est c'est le bien-aimé. Il a pris son amour. Donc nous devons chasser la tristesse à la place et amener la joie dans nos cœurs. nous, avons, nous devons chasser les peurs et amener le courage. Il, il, il faut qu'on soit très très très courageux face à cette épreuve, qui n'est finalement pas une épreuve, mais une, une, réalité juste qu'on devait rencontrer. Mais si, si nous sommes ensemble tous, on ne va pas sentir ça, on va sentir que de l'amour. Donc rapprochons-nous, soyons unis auprès de son fils aîné et disciple, Serine Cheikh qui nous a laissé sëriñ bi l'a trempé de sa lumière euh, y moins deux mois mon épouse soxna Ochan époux mon épouse est talibé de sëñ Babacar Mbow il est allé voir sëñ bi il lui avec tout son amour sëriñ bi si tu pars comment on va faire ça c'était en Normandie sëñ Babacar a séjourné un mois en Normandie dans dans chez famille avant de venir au Sénégal Ochan lui dit qu'est-ce qu'on va faire sëñ bi si vous n'êtes plus là Seigne Babacar lui a répondu Un autre visage éclairera la communauté. Et voilà ce visage, Seigne Cheikh Ounambao. Seigne Babacar, même la notre conversation d'aujourd'hui, il nous voit, il continuera à nous voir. Il lui a dit Un autre visage éclairera la communauté. Et ce voilà ce visage que nous avons accompagné, qui est son disciple, son fils aîné. C'est avec lui qu'on est venu aujourd'hui renouveler son pacte d'allégeance à Cheikh Ibrahima Fall qui est sëñ Modou de Fall donc sëñ Cheikhouna a fait son jébbalu tout à l'heure auprès de maam Cheikh Ibrahima Fall en lui confiant tous les talibés toute la communauté toute la fois que nous avons c'est aujourd'hui que nous rafraîchissons cette foi-là tout ce que nous avons dans le cœur c'est comme si il eu un éveil il eu une lumière qui est tombée Sëñ Cheikhouna ne pouvait pas nous réunir tant qu'il n'avait pas fait qui est, qui est, le geste le plus noble, le contrat le plus sûr du monde. C'est le contrat de Mam Cheikh Ibrahim Fall, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ce contrat-là qu'il vient de signer auprès du Khalif général des Baïfal. Voilà. Je, te, confie ma personne, ma famille, mes bien à l'ici-bas et à l'au-delà. Tout ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Tout ce que tu m'interdiras de faire, je ne ferai pas. Voilà les paroles que vient de prononcer notre maître spirituel, na Cheikh Nambo, devant le Khalif général des Baïfal, en ayant comme témoin tous les talibés, en ayant comme témoin les djawriñ, en commençant par Baïas Nyang, qui est présent, qui, est, qui, a, qui a cheminé depuis, le début avec Seigneur Babakar mbaw Andem. Je vois Baïfal Loufal, Bayan Khoba, Baï Moussa Djen. Voilà les, les, les premiers Baïfal qui ont accompagné Seigneur Babakar. Donc il est de notre devoir de rappeler ça aux nouveaux talibés parce que magum talibé dafa am ci yoonu murit <laughs> je retombe dans le wolof il, il il nous faut reconnaître qui était là parce que avec leur humilité leur degré d'effacement Bayas Niang tu peux passer la journée dans une maison avec lui tu vas même pas s'apercevoir qu'il y a un être humain avec toi par sa discrétion son humilité et quand je peux parler pour sur beaucoup de talibés si je dis son nom tout le monde est dedans Babacar le monde est Donc aujourd'hui, les témoins qui ont assisté à ce moment très important et très précieux, je peux citer Baye Gabou Gueye, Baye Fallou Gassama, Baye Souleymane, baay Mam Cheikhlo, Baye Madike Badiane, qui ont toujours accompagné, qui ont vécu avec Seigne Babacar un vécu vrai, un vécu vrai et sincère dans la voie de Dieu. Parce que toutes leurs relations hein, commençaient et, et, et se terminaient dans la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc aujourd'hui, voilà les témoins qui sont venus assister à ce pacte d'allégeance, à ce djeboloula de Seigne Cheikhouna auprès du Khalif général des Mourites, des Baïfal, qui est le talibe de, du Khalif général des Mourites, qui est le talibé de Serigne Touba, qui est le talibé du prophète Mohammed salam auprès de Dieu. Donc voilà la chaîne euh, interminable depuis le prophète Mam Adama jusqu'à présent, cette, cette chaîne soufie de transmission spirituelle ne s'est jamais interrompu. Donc nous remercions Dieu de nous avoir invité euh, invités, nous tous, par ses moyens, par ses lumières, à, à, à être parmi les gens de l'amour. Comme le dit Seigneur Babakar, nous tous, nous sommes des gens de l'amour. Donc on, on, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On, Aujourd'hui, notre cœur vie de joie, vie de bonheur et vie de vérité. Un, un cœur qui respire la vérité. la, la grâce que nous avons eue à connaître Seigne Baba Karmbo et avoir œuvré à ses côtés sur le chemin de Serigne Touba. Parce qu'on aurait pu le connaître sans œuvrer à ses côtés pour la face de Dieu. Mais nous l'avons connu, nous l'avons aimé, nous avons œuvré avec lui. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une chose seule à dire, à dire c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à Dieu. Donc euh, le Khalif général des Baïfal, quand Seigneur a fait cet acte d'allégeance, il lui a dit trois choses. Il, il lui a dit en premier lieu, j'ai le cœur très touché parce que, parce, par ce que tu viens de faire et je l'accepte avec un cœur grand ouvert. Son, ton, ton, ton Dieu belou. Donc ça veut dire qu'il qu nous avait dans son cœur. C'est qu'il a commencé par lui dire. Je vous porte dans mon cœur. J'accepte votre pacte d'allégeance. La deuxième chose, il lui dit, euh, je rappelle à tous les talibés que c'est toi Seigne Babacar Mbow à partir d'aujourd'hui c'est Seigne Cheikhouna Seigne Babacar Mbow c'est ça qu'il a dit en deuxième lieu troisièmement il a di tout le ndigal de Mbacké Kadior je remets la responsabilité entre tes mains donc loolu aussi c'est un autre alhamdulillah qu'on dire Parce que qu'il aurait pu nous retirer le travail aujourd'hui et le donner à un autre chef. Et demain, on range tout nos, toutes nos affaires, on rentre en dème. Parce que Seigne Baba Karmbo, il, il n'est jamais allé à Mbakadjor, il ne connaissait pas Mbakadjor. C'est le ndigal de Serigne qui l'a amené à Mbakadjor. C'est le ndigal de Serigne qui a fait qu'aujourd'hui, il repose à Mbakadjor et pas ailleurs. Donc ça aussi, c'est une reconnaissance envers notre cher et vénéré Seigne Modou Mendafal. Donc en troisième lieu, il lui dit, Seigneur Cheikhouna, à partir de maintenant, c'est toi que je mets devant tous les mourit, tous les baïfals sur le ndigal de Mbake Kadior. Donc ça aussi, on a dit Alhamdulillah. Donc voilà les, les, les, les trois euh, grandes nouvelles et recommandation du Khalif général des baïfals qu'il kila accepté son diabolou. De, deuxièmement, qu'on suive Seigneur Cheikhouna pour avoir l'agrément de Seigneur Babakar et continuer à œuvrer Seigneur Babakar. troisièmement les ndigal et quand on dit Mbacke Kadior c'est large il le mois de Ramadan il tout ce dont un Baye Fall doit savoir toute l'année pour œuvrer au côté de Mame Cheikh Ibrahima Fall voilà notre porte Serigne Cheikhouna donc c'est ça que nous avons euh, appris et tiré aujourd'hui de Serigne Modou Mbenda Fall que Dieu lui prête une très longue vie et une grande santé voilà euh, un petit résumé de ce que euh, de ce qui nous a réunis aujourd'hui à tout Touba. Et Seigneur Cheikhouna aussi a pris la parole tout à l'heure pour remercier tous les Mbok talibés qui sont venus de loin pour euh, non pas le soutenir, parce que lui, on peut, ne peut plus le soutenir. Il est, il est devenu Seigne Babagar, il est devenu une, autre dimension. Mais pour euh, raffermir notre lien, hein, renforcer, consolider tout ce, que, tout ce qui nous attache à Seigne Babacar Mbo nous, nous l'avons accompagné aujourd'hui pour être des témoins devant Dieu de ce qu'il a fait. Donc il a remercier tout le monde. Vous êtes venus de loin. Mam Cheikh Raphaël, vous avez pris l'avion avant-hier. Chérif, euh, Mam Diara, Alban, ñu ñëpp bi ñu yëgee xew-xew bi démb lañ jël seen avion jaayante ñëw ci sëriñ bi. Donc sëñ sëñ sëñ Cheikhouna vous vous remercie profondément de tout ce que vous avez fait. Et moi personnellement Euh, je tiens à remercier Sohna Maria Massar, qui est ici présente, qui est une disciple fidèle de Seigne Baba Karbo, qui a beaucoup œuvré à ses côtés. Euh, et je peux être témoin de tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a donné auprès de Seigne Babakar. Donc, euh, euh Mariam, vraiment, aujourd'hui, nous partageons tous ces moments-là ensemble. Il a, a, personne qui peut dire c'est moi qui pleure Seigne Babakar ou c'est toi. Mais arrêtons de pleurer et soyez dans la joie. et la confiance totale donc Mariama je tenais vraiment devant tous les mbokk taalibe te témoigner euh, ton taalibe parce que sëñ bi da koo seedeel ak taalibeem waaw nu mu mënti mel rek sëñ bi da koo ak taalibeem sincérité am sëñ Babacar da doon wax toujours baat boobu nañ koy bàyyi xel sincérité dafa am solo mooy ak dëggu waaw te ci dëggu la la bi di dimbalee soo dëggoo say ayib yëpp sëñ bi du ko gis waaw soo say say njuumteeg say ndëngteeg say yëfi bopp. sëriñ bi dootul gis loolu nañ dëggu rek nañ bëgg sëriñ bi te dëggu ci rek waaw doxal ko luñ ci fekk ñu jël dañuy yegg incha allah mais ñun daal nañ xam ne moom lépp mën na faal koy waxee lépp mën na sëñ Babacar wàcc na wàccoon ak ñun dañ koy dollee sant di ko dollee euh, di ko dollee ñaanal fu ñu toll ndax sëñ bi sëñ Babacar moom jëf nañu gis ah wax nañu dégg bind na ba fi sëñ Babacar bind na juróom-ñeenti téere yoo xamante ni ñun ñii rek la ko bindal ngir ñu jaruñu ci yooyu traduire ci ay làkk yu bari kon nag loolu rek doy na sëkk sëñ Babacar moom fu waay toll mën nga koy bëggee ñi ñi ko xam te gisuñu ko sëñ Babacar te di di di di naan ci ab di naan ci teenam moo ëpp sax ñi ko xam te gis ko sëñ Babacar man dama cee am ay confirmation waaw ñi ko xam ñi ko xam di naan ci géeju leeram ci ay njàngaleem ñoo ëpp fuuf ñi ko xam gis ko sëñ Babacar téere yi mu bind rek ku ci jël benn doy na sëkk ngir nga yegg ci sëriñ bi te ñun loolu rek la ñuy wër li ñuy suñu kër ci gi yëpp yegg ci sa sëriñ bi rek la ñuy wër am ngërëmal sëriñ bi te benn téere boo ci jël yegg kon nag sëñ bi moom daf defal nañu lépp ñun ñoo ci des nag ñun rek ñoo ci des Ababacar mi nga xam ni moom la kii tooga ab jitaayam moo jëkk a gëm rasulullahi te weer wii ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci la téere booboo gën ci téere yi weer wii guddi gi ci gën muy guddi laylatul xadar ci weer wii la ñëw kon su sëriñ bi amee ndigal tey ci xalif général de Baye Fall ci ndigalam lu jëkk yéen ñëpp na ngeen ko yóbbaale. lii sëñ seexu naa don ci baayam sëñ Babacar doon woon ko ci baayam fekk ko ci ndijaayam moo ko keriyeel boppam done la ko ay doomam ak i taalibeem bi ko Cheikh Ibra Fall di jënd ca Mbàkke Kajoor doon na ko ci baayam fekk ko cay ndijaayam Seynabou Ndiaye Cheikh Ibra Fall ko keriyeel boppam sëñ Modou Moustapha Fall ko jëkk a donn nii ko sëñ Cheikhouna donne ñu di ko doxal ba nega nii yàlla tombati sa wayjur wu tedd wa nii weer wi tedd yàlla na ne sa ndigal li tedde nii weer wi màgge yàlla na ne sa ndigal li màgge ni alxuraan noppee yal na ni sa liggéey yëpp noppee ci sa wéyjur wu tedd wa waaye nanu doon ay gor lislaam ak yoonu murit tam ku gorewul bokkoo ne leer lislaam ak yoonu murit ñoo yem atte ku gorewul bokkoo saxaaba yi dañ daan dagg seeni baat ñuy xeex te ci weeru koor weeru koor wii nu dugg fukki fan yaa juróom-ñaar mooy xare badar ña ca dee ñëpp yonent bi lañ doon wut ak ngërëmam te nun ñii noo ngi nii ñoo ñoo ñaa yem ca nun dëgguñu suñuy baat laaju ñu nu deret fa bu ñu jaar si kor suñuy bopp jamuñu ñunu paakaa ko xeej li nu yor mooy alal képp la nu yàllay laaj ca wama min daabatin fi larli allah ilalaay risqoha yàlla moo nu jox alal yi ni defaat leen ko ci buntu yàlla bi wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayri tajiduuni indallah képp ku wor yàlla di nga dajeeg moom nanu jaayanteeg sunu alal yi nun ñëpp a yor lu yeggale Mbàkke Kajoor yor na nuy wata yor na nuy télévision yor na nu ay xel yor na nu matériel moo xëy bu nu ko jaayanteeg jëmm ji bu subaa ca ngoon bu ginnaaw subaa nu jébbale caabeem yee nan wax li fi ne waaye nanguwumaa jaay oto nanguwumaa jaay kër nanguwumaa jaay sama matériel te ni bëgg sëñ du dëgg ci Baay Faal nanu jaayante du dëgg de ku ne am nga loo bakkat feggu ci sa kër nan ko jaayante ak jëmm ju tedd ji jaayante te xam wa saabi xoona saabi xoon ulaykal muqarrabuuna saxaba ya jaamu nañu yàlla julli nañu natt nañu as waaye dañoo mujj ci jaayante moom la Cheikh Rafal jaayante ci barab bee baaba Babacar Mbow tëdd moom la wax nag yàlla bu nu ci jógee sëñ bi bis boo jàpp ni nanu ko ñëw ca bi ca Mbàkke Kajoor fu waay nekk nañ ko fa def waaw fu waay nekk waaw waxuma jaayante poos jaayante yi ma wax mooy bu nu demee kenn ku ne natt barke sëñ Tuubaa boo nattee sa bopp daa jaayi këram jaay ay otoom lii may wax niveau niveau bi may wax waxuma loolu de nanu jaayante Babacar desewul kër moo ko may ngërëm lii desewul wata moo ko may ngërëm lii nanu jaayante bu ñu demee laa bëgg nu def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah